xalaat ne euh, jigéen jooju nga xam ne mi ngi jënd produit bi euh, ci pharmacie bi day obligé tout le temps di dem ci euh, poste de santé bi ko gën a jege pour ñu defal ko ko léegi bu fekkee ne ko jigéen joo xam ne la moom amul jot même bu ko jëndee pharmacie day obliger xaar ba mu am jot rek pour mën a dem te ñëpp xam nañ ne DMPA bi dafa am moment boo xam ne da nga koy war a renouveler te contrainte yooyu yëpp tënk leen mën na leen euh, yombalal mbir mi ba nga xam ne bu fekkee ne projet bi mettre nañ ko en place ñu mën a di jënd fa euh, fa ñuy jëndee seeni produit planification familiale comme DMPA bi wala implant bi ñu defal leen ko ca saa si ci pharmacie bi nga xam ne moo leen gën a jege